mais damaa jël sànq Balla Gaye avant may ñëw fii hmm. li taxoon ma koy jël suba ba ma war ci jël bekkaay mbay tamit hmm. ci seen demu ministère de la justice ñu gis journal suñu làmb tey mu bind ci que ni yéen yéen a sàkk woon ndaje boobu noonu en plus bëgg ngeen président dalal dalal leen ngeen jaarale ko ci ci ci ci ministre de la justice bi Balla Gaye nag weddi na loolu loolu est-ce que lu am la wala amul. ah non non loolu amul xam nga yow tamit am na yoo xam wax yoo xam ne jarul tax déglu li may wax. du tax lamb lu naqaree lamb lu naqaree defar li may wax chaque fois quoi. Mm-hmm. ñun nan la nit di génnee isam la. wax ci làmb tey wax ci làmb luy metti ñëpp. ñun ñuy dem pour sàkku pour gis ko. xam nga loolu meegul sens wax jooju yenn bu maanaam. xam la eh, tey loo gis dafay am njiit. loo gis dafay am njiit Gris ba moo koy wax sax du semaine bi passé du période bu ñu fay dem. avant semaine bi contacté woon nañ ko isam la wax ne xam nga ministre bi daf ñoo bëgg a gis. xam nga tamit ak lu mën a am ministre bi kilifa mhm. yàlla moom mooy def njiit njiit. dëgg la jox cër bi ko yàlla jox. Mm. tu om compris. Mm. léegi ba erreur amee xam la moom lu mu lu mu rëcc la xam nga bëggoon tey gis mbëri xam nga pour pour pour pour jéggalu. Mm-hmm. xam nga tey mbëri yëpp mënuñu fa dem. Mm-hmm. mbëri yëpp xaaj ñu fa. dëgg la ba giri contacté itam wax na woo na diw woo diw moo ne ko non loolu du problème. Mm-hmm. amul benn problème boo ñu soxla xamul te xam nañ ni yëpp pour jégalu ak yooyu noonu. ñuy mhm. dem loolu amul problème. ci dem bi ngeen fa dem tamit am na ay mbër yu ndaw yu def sorti di ci classe Gris Bordeaux. non hmm, mooy li may wax chaque fois rek lamb lu naqaree defar lu naqaree defar la mais damay la kër goo gis benn kilifa lay am. Hmm. tu as yàlla moom moo dogal Gris suñuy naataango mbër la ñëpp. Mhm. mais ñëpp ci mbër yi ñoo ko tànn. Mhm. waaye. réewu benn njiit lay am lu nekk fa mu am njiit mbër yi ci ëpp giir la tànn def ko mu nekk président de lutteur en activité tey amul lu ñuy dox li nga xam ne du intérêt mbër yëpp exemple xam nga tey ñenn sax ñi yàlla teg fenn fii yàlla mu leen sutural am na loo xam ne exemple la mën nañ ci dund dara ci seen bopp mais lu ñuy def yëpp pour ñoom la pour ñoom la mais tey am na yoo xam ne rafetul lamb yi dafa war a nekk benn gis nga moo tax fu ñu waaye bëgg jaar jaar ñu fa. Hmm. kii day génn wax lii kii génn wax la le hmm. gis nga yaa war a wax wala yaa neex làmmiñ bu la taxee fu génn fu nekk ngay nekk di wax. Hmm. wallaahi di nga wax li nga xam ne di nga ko regretter wala di nga wax loo loo loo mënu ratifier. wax dafa doy waar. xam yéen tamit mooy loolu. yéen yéen ku bëgg wax tojaage su leen yi ñëw wax lu ko neex. <laughs> affaire yi mm-hmm. du foofu. dëgg la dëgg la dëgg la ñëpp nekk benn ñuy xëccandoo di dóorandoo dadi yi isam lax ñëpp mu ñëw jógandoo dem fenn. Mm-hmm. tey bu président woote woon sax du mbër yëpp ñoo mën a dem. dëgg la dañ ciy tànn ay quelques nit ñu dem. Mm-hmm. loolu faaw mu am. mais yooyu dafa warul am. lamb benn la. man su ma jugee di dox isam lax ci luy intérêt lamb laay dox. xam la hmm. du génn kii créé yëfam fële kii créé yëfam fële loolu amul benn sens amul njëriñ. Hmm. nañ ko bàyyi daal rek waxukaay yi ñoo yomb ba nekk nekk di wax di wax mais wax ji bëri wax dëgg yàlla amul sens. ok am na solo kontaan naa ci yow. ba ba ba premier de choc xam naa yow lañ nar a njëkk a invité. waaw daal fexe nga wax loo te boo daanoo su bëgg naa ci yow.